الله لا إله الله لا إله الله لا إله lii nii nag lan mooy dem si vermicelle bi déet may ma nag di gërëm ndax jotaay boo xoolee ni mu demee rek gërëm rek ndax du lu yomb di fi ñëw teew ñëpp kenn ku ne am na fu mu jógee te am na lu mu bàyyi ci ay kon nag bu teew amee rek sant gërëm ko dafay jaar ànd ak it bi ñu teewee teewuñ rek ak loxoy neen waaye jàng na ci ay kaamil lu mu war koy comme yooya ay jëf la yoo xam ne sant rek ak wax ak gërëm waaye nit jullit bi bu ko yàlla dimbalee ba mu def jëf ju baax ba nëpp ja lam war damay faral di wax ne ak taale bi bu jëfee ndigal te nañ ko ko digalee mu jëfee ko ba ndigal la sotti lan ko war a xam moom mooy alhamdulilah parce que yombul soo defee nag nit nag ku amee lu yombul kon sant yàllaa ko wax te ku ko am rek yàlla li dimbal kon ñu sant yàlla moomu dem du ko sant it ci xewal jëm ñu defal ndax am na loo xam ne ku ko yàlla defa rek doxal na defal na la xewal adduna ak àllaaxira te kat xewal yi nga ci ëpp nag mooy lislaam lu jaam am te du am diine rek amagu la dara kon xewal lislaam mooy xewal dëgg te loolu yàlla xewal loolee nag mu jaaree ko ci jëmm di ñu wax sax Moussa Cissé borom pas-pas bu rëy ba borom fit bu rëy ba borom xel mu rëy ma ku bëgg yàlla su yàlla jaral boo ko tey lii bu amee tey ci moom la amee ñu war a taxaw seetlu baax na ndax xel bi jël lu dul settantal jëmm jooju leen nga xam ne daan wax ne xam-xam de bu doon jaay dinaa ko am mu tedd mooy ku bëggoon xam-xam la teel a jóg it teel ba xëy fa am kon kooka lépp lu xam ne ballee na ci moom rek xel war di jàngal damay wax lii nga xam ne moom la feeñal bodu ko ci mbedd de déedéet waratu ko de da koo liggéey ci yàlla la ko góor yaa doon liggéey ak bërki démb ci ko liggéey ci yàlla ba xëy ko am te loola li ñuy jeexaat nekkul tax lépp ci kanam jaami la ko def amul soom te xanaa baatin ba waaye ku gëm yàlla di ab di tëj sa néeg téye sa kurus di jaamu sa borom lu mat juróom-ñaari at di sàkku leen rek yàlla ah war nga xam ne kooku bëgg na yàlla jaral la nga war sa njaboot gannaaw war say bokk gannaaw yow kenn kat beru di subaranke di xiif di mat di rafle te mënoon lekk bari tuur mënoon a waddu man laxat ko daal lépp mënoon na ko am mu yokkoon ko lool waaye da ko amoon lu mu ko jafee woon yàlla day jaay yàlla bëggoon nag moo tax mu jafee woon ko ne xiifoon ba danañ ko rafetee ba danañ ko wan njabootam ko gannaaw danañ ko wéetal yàlla ak wécci ni la ba tey nag naa ci yàlla sama naa ci yóbbu jàpp kaa leen wan leen yàlla kaa leen ma xam ne nga jaamoo yàlla ñu bokk jaamu yàlla ak a doon dëkk loola waaye waxoon bokk jaamu yàlla lan wax dëgg moo tax sax bu ngaa wax dëgg nag wax dëgg yàlla nañ ko settantal woo ten na ko topp su ma la gërëm nga dem àjjana woo ten na ko maa la yool sa àjjana daf ne laaj leen ma yàlla ma xamal leen lu bokk jaamu ji yàlla boobu yàgg sa boo tekkee waaye li lu gën la tekkee ne adduna yoomal xiyaam coopérative la moom rek dafay jëlee dara loolu jege jege kees bi yoroo boog doo ko jëndee dara su dem du ko yokk ñu ñëw lu ñu def ah waaye ci dimbali nañ jàmm ñi na xel itam kan jox ko loxo te jox ko suñu bopp mooy yow ma ko la jaaxal laata la ba ku wutal moom dana tuddoo bii ak yomoo saa ko wax. ku wutee soo Moussa biñ ne ak daa sama femme ko am nga mos yaa ngi la maa la de te daal du ko dindi nit ki lim nekk bay génn àddina di ko dénkaani di ko soññi moom xam na fa mu jàpp xam nga ko xamul dana mooy laa ilaha illa waaye sama xam moom xam na ko moom te bëggoon na moos gannaaw ñu jàpp ko ba tamay wax ne duñ ko wax àddina duñ ko wax àllaxira donc duñ ko wax fii ci àddina duñ ko wax yomal xiyaam xooluñ kenn jëstuñ kenn li mu am doy nañ fii ci àddina yomal xiyaam lu ko soxla yomal xiyaam keppaaram ba luñ ko fekk doy nañ maa la ko wax fii ci àddina yi xooluñ kenn ràccuñ kenn day wax naan ñëpp nag màggal ñëpp nag waaye moom kenn képp tey def suñu kanam. dëgg la mooy suñu keneen ba tey xel gis na du keneen loolu rëy rëy taal yi bàyyi leen seen dal de sangu nañ la gis na waaye xool de sama xale yu xool déglu na moom ñu déglu te war nañ ñoor ba taxam nañ ko gis na buñ ko laajte kon nag ñun am nañ xel mu daal. su ko defee képp ku jot laajte moom it nag nii suñ xel rek taxal na lay tal na ko ndax liñ woon la leen wax su ko defee nag kon loolu ñu koy bàyyi xel saa su ne. ku am lu doy da nga koy doy loo waaye am lu bu noppi di renseigné sa doole bu yàggee dafa am ñàkk sax li ñuy dox laaju dool li laaju dool li jëf la laaj ak saxte la laajee waaye laaju dool la doo ca dool yàlla doo dool ci yàlla koo ko jëlee yàlla dama doon la mënut nga laa mooy yàlla waaye comme yàlla kay da ngay doog nopp lu nag te li nga tënk ko nag dem daam set lii rek la soxna saa bii naa la nit yàlla yi ñàkk lool na te yërëmoon ñëpp daf doon dimbale jaam ci saa yi di dimbale jaam ci baat yi boobu seen yombul de su xam ne day lampoo sa jox taalibe laamaa lan jox taalibe jox ko yàlla jox alal te yow joxoo ko dara na nga koy jàng wax sama ci sànq keroog bañ ko taalee li xam ne askan bi naf si juróom nit lañ fa doog ko laaj suñu daal delloo suñu bopp da koy suñu bopp du bopp suñu bopp boo di si jàll mu gàccaat suñu bopp yeesalaat kàddu ga mu yeesalaat waxtaan ba koy yëg yàlla yàlla duñ ko fa laal te ku ne jiw nga sa bopp loo xam na la teel loo fa la waaye kii doo ko mën a fay kon sax tax doxal nga loolu dox nga sa bopp ci sa bopp nga nekk ba xëy am yàlla moo tax ñàkk sa bopp sa bopp ngay xëy te ngay te te ba te sa ñu ci ba ni xam ko waaye nag war nga seetantal nag bu nag bu baax nag xam ne kii kat am na lu ma war ci moom mooy sa doole ji sa taa bi sa ñàkk bi jox man taxu moo ko moom parce daf laa jox loo man taxay mooy yàlla sëriñ fekkoon que dara du laa bi yàlla xam yàlla kese sëriñ du yàlla sëriñ moomu yàlla sëriñ du ku ñuy jaar parce que réew mi ñëpp xam nañ loolu bu daan nga sëriñ waaye damay faral am sëriñ boo xam ne ba koy uti yaa yóbbaale julli yóbbaale koor yóbbaale asaka yóbbaale jàng alquran yóbbaale sa diina xam sëriñ ba noppi nag sa diina ji doo ko yóbbaale sëriñ ba lu sëriñ bi doon sa diina yow sëriñ boobu lu mu doon sa diina ji lu nga doon bi yow lan koy jox kon boo ko teg yow tool yeeg xàddi yi moom fu mu koy teg moom ka doon sa diina dara soo ko teg xanaa da nga yaakaar ne moom loolu la moom moo lay jot ci àjjana mbon lu mu doon ci àjjana yàlla ja ba tax muy lekk àll jaam ñi ngir àjjana te téere ni saa akul bi diini ba bi safaat téere ay nañ ko di kon nag ndeket ñu am sëñ bëriwuñ de am nañ ay xarit toog am nañ àndandoo waaye sëñ moom jafe la lool kon de ku mel nii amoo sëñ sëñ boo xam ne yaa ma ñax kese la yaay sama taan ay sëriñ tàppaan ci kese boo bëgg jaamu yàlla kese ënneen xàddee kese lii mooy sëriñ du sëriñ du sëriñ bu sëriñ yàlla nangu wut yéen mu nangu wut sëñ Tuubaa nangu comme mën doon nag loolu Cheikh Saal nangu sëñ Tuubaa daa yoroon jaam ñi ko ci ñoom bañ yëg ko ku mën ci def ci loolu bañ ko doo sëñ Tuubaa ko doo la war a wut sëñ Tuubaa ba tax na kon sëñ Tuubaa ngoog waaw sëñ Tuubaa sëñ de Tuubaa mooy taxe Tuubaa mooy àjjana borom taxe boobu leen mooy ku ñëw mujj woon nekk taxe la ku koy borom texe gi di texe gi nag mooy àjjana loolu la sàmm saay wax la su ko defee nag kon ñu sant yàlla bu gër te xam ne gumbóowuñu tànkuwuñu ñàkkuñu xel dañuy xam jeexaatuñu këpp ñu leer naññi te yéen leer ne naññi na xam ngeen ko sax lu ci Cheikh Moussa waxoon ne nax naa leen da ko naan xaq saa demal loolu rek te bàyyi ñu ngi dox kon nag loolu lañu laajte te nag nit koo xam ne fuloo ko xel daaxuloo ko jàng gën la ko bëgg lu baax loo ko seen mu nekk ca te da caa jeexal ba kanam daa war a am xel ne xaaral ma seet loola lan la ndax yow li nga ne xam na ko su ko defee nag liñ nekk nag ku ca bokkul mënu caa doon dara boo gëstoo réwatal ak développe arrêté di développe du yàgg mukk ba nga laal lam doon duñ ko ko wax luñ leen wax rek du moom loolu lu mu bëri bëri la doon kenn du ko laal laala buñ ko te duñ ko mosala abada bokk ca rek xel mu rëy du ci yóbbu nit. naxante du ci yóbbu nit am nañ am seen xel mu bi sax am na ñu du ko sikar baax waaye duñ jàpp parce que awuñu yoon wax dafa am kilifa te loxo la nekk loxo ba ku nekk te loxo moom rek la dara kon nag su ngeen xëy bay loxo bi nekk nag seen ngeen tàllal dara donc laal su ko defee nag kon nag moom toog subaango bu baax a baax aywa mu nga moom la du tàkk kon nag borom bët subaango mooy soxna Ba tey la fi gën a nekk nag tey la fi gën a nekk tey la fi gën a mat tey la fi gën a yàgg ndax li tax mooy démb kenn képp la woon ku toogul ci gàppaat la nga war dégg doo ko dégg waaye tey boo demee sëñ Aadi dégg ko boo demee sëñ mu dégg ko boo demee sëñ bi dégg ko toog dégg Cheikh Moussa Cheikh Moussa tey ay Cheikh Moussa la waaye dégg jafe nag. ndax ñi ñuy xoolee Cheikh Moussa tey dañ leen di xool xeet leen ah ñu ne bu ne leen nangam nangam fekk nag yàgg na ko si jëriñ kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaari sëriñ bi yàlla yàggal ko bu baax ñu xool ko baax te jàpp ko te doy la ko nit la ku baax ku am yërmaan ci jaam ñi ku am njëriñ ku am barke ku am aan toogaayam bi yàlla na fi yàgg lool te wér ku am xel te settantal xam ne toogaay bi am na barke dana ko yàlla yàggal dana ko yàlla may wér dana ko yàlla may àgg li mu yéene yëpp ci liggéey sëriñ bi yàlla ko yàlla defal te ñu ànd koog moom saa yu baax ba sëñ Tuubaa ba sëñ Tuubaa. jërëjëf jërëjëf Touré kontaan nañ de alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilah rabbil alamin waaw bisimilah. waaw kon jox na digal sëñ Adama mu ñaan lii sëñ Moussa di wax man moo nekk ci benn yërmande foofu mu ngi yërëm nit ñi pour. moo ko yore wóor na yàlla gaasileeri moo ko yore wóor na yàlla gaasileeri moo ko yore wóor na yàlla keejileeri moo ko yore wóor na yàlla billahi wallahi moo ko yore wóor na yàlla billahi wallahi moo ko yore wóor na yàlla séexu lu wax fi la ko jëlee fi lu ñu wax ci bamba ñu ko jëlee amuñu benn wasila bu may bamba amuñu benn wasila bu may bamba yaakaaruñu nag ku dul yalla yalla mo di sunu borom dafuñ borom keneen ku dul yàlla borom keneen yalla mo ñu bind amal ñu ak ñu da do suñ mbir mo ñu fay jëlee fañ jëm coobareem rek sule dee sule su dee safara su dee feneen jabareem rek kon nag ñun yaakaaruñ kenn ko xam ne kii tàllalu la suuf sii tàllalu la asamaan sii biddi yi doxalu la leen jant bee weeru doxalu la leen doxalu la noor ak nawet doxalu la góor ak jigéen doxalu la dara gisuñu kenn ko xam ne yooyu mën na cee fekk yàlla kon nag ñun yàlla kii xam ne yooyu la moo def suñ borom borom moo xuñ keneen nag suñ wasi yi nag mooy bàmba du keneen wasalaam